al ibaadatu wal xidma di ji maa ngi nuyoo di ko teg ci loxol sëriñ ak sëriñ xabaan wax ne yàlla na yàlla nangu ñaan yépp te yàlla na ko yàlla boole mbokk mi laaj ku dem ci jàkka di faslu ab sëy góor gi lañuy ñuy tudd ne may nañ ko soxna wala jigéen ñi la ñuy tudd ne may nañ ko waaw bu ñuy mayee soxna de ñaari anam mën naa am kilifa jigéen ji wax ne diw sàngam tudd góor ga ne may naa ko diw ña fa teewal góor ga it daal ne diw moom it di nangu na may gañ ko ko may anam googu mooy yi kilifa jigéen ji njëkk a wax ne maye naa ñi ñi may ne nangu na waaye manis na it ne kilifa góor gi daal di ñaan ñaan damay ñaanal diw soxna kilifa jigéen ñi may naa ko soxna yëpp mën naa nekk waaye nag bi ñu gën a taamu mooy kilifa jigéen ji wax ne may naa diw soxna sàngam kooko wax ne moom it day nangu na soxna suñ ko may lu gën a bari fii nag mooy ñëpp dañuy am ñu leen teewal kon kii maye mayewut doomam day wax ne diw sangam maa ngi koy eh, tudd tur góor gi ngi koy may soxna diw maa ngi koy may diw sàngam bu jigéen dañ koy may ci ndigalul ay kilifa nga xam ne dañ ko wakkil ne ko maye ko eh, taw sopp na ñit wax cen gi ne ñu ngi koy maye ci cen gu ñu dëppoo wala cen sàngam bu ko defee bu natta it nag ne nangu naa diw sàngam di na may gi bu dee moom coxuma may di waxe man nangu naa may gi ma may waaye li gën a bëri fii mooy da yebal keneen ay kilifaam teewal ko ñoom nañu wax ne diw sàngam nangu na may giñ ko may wallahu taala alam mbokk mi laa na jumaa joo xam ne une heure nangam rek la julli nga xam ne boo fa jullee nee na da nga julli ji ba wàññiku door a gis yeneen jàkk ñuy julli muy laaj ndax julli fu mel noonu gën na waaw ah, bu leeree na ci bopp waxtu wi lañ julli de dara nekku ci ndax waxtu wi yaatu na léeg-léeg bu une heure tegalee dara rek ci ay xëy na nag am na waxtu wóorlu woo xam ne kilifa yi dañ koo dolli ci waxtu wi bu zawaal jotee ñu yokk ci fanweeri minute door a noddu loolu ngir wóorlu la te it boobaa it day wane ne waxtu yëpp waxtu bu jotee tisbaar dana jot bu tàngee it seerlu ci bu Malik du ñu digle la yéex a julli tisbaar ngir ki bàyyi ba kër yi génn waaye su waxtu jotee rek moom bu fekkee daal ba ñu julli tisbaar dëgg dëgg euh, zawaal li ñuy wax digg bu ca jot na su boobaa julli baax na dara nekk ci wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax ku takk soxna sart la ci mu yóbbu ko këram moom wala du ca sart waaw takk soxna li loolu lu ñuy waxaale lu ñu wax jubbu la waaye saa ñu mayee nit soxna moom am na sañ sañ yóbbu ko moom foofu nekk mu nekk fa moom lu dul nañ ne bañuy fas dañoo waxoon juboo ci ne moom kat da koy bàyyi kër ndeyam ak bàyyam loolee ku ci ànd dara nekku ci li cosaan moom boo takkee soxna dañ may la ko foo nekk fu ne te man fa nekk man sëñ ko fa yóbbu waaye nag bu fekkee bañ koy fas dañoo juboo ci ne moom ko danga ko fi bàyyi su boobaa nag la ngeen déggoo ci ngeen di wéy wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku doon julli tisbaar julli ñaar rakka sëlmal fàtte ko nu muy def waaw bu fekkee ne ca saasara daal di jóg àggalee julli julliwaat yeneen ñaar rakka bu noppee mu sujjóot ba'da salaam ndax sëlmal boobu da ko dolli ci julli gi bu fekkee nag sëlmal na lu yàgg wala génn na jàkka ji mu nekkoon door koo fat di ko julli gi day yàqu booba day julliwaat allahu taala alam mbokk mi laaj nee na moom buy bind càmmoñ lay bind bind na ci sax ab kaamil nee na waaye mu dégg ñuy wax ne bind càmmoñ baaxut muy laaj atte ba loolu li gën de mooy bind ndeyjoor ndax te tayaamun ci yu baax yëpp yu baax yëpp dañ ko ci sopp waaye nag lu ñu sopp la ku ko man te amul ci ngànt moo tax ñuy wax ki nga xam ne mënu ko moom yàlla teewul kenn lu mënut waaye su mën a jëfandikoo ñaar loxo yépp daal jëfandikoo ndey joor ci baax yi mu ko su ko mën nag loxo bi man mën na ko jëfandikoo wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ñi nga xam ne seeni boroom kër dañuy faatoo bitim réew te léeg-léeg ñu yeex a ñëw am fa weer ak nangam door a ñëw nee na jigéen ñi ni dañuy xaar ba boroom kër ba mu ñëw néew bi ñëw daal ñu door a tàmbulee teñ ji muy laaj loolu luy atte bi lislaam lislaam moom li muy atte mooy ak teñ bu borom kër bi faatoo rek lay tàmbali bu borom kër bi faatoo lay tàmbali ca la ñu war a tàmbali teñ ji ak idda ja idda idda la def mu ànd akuk teñ ji idda gi mooy toog gi muy toog du tukki fenn du fanaan àll deesu ko ngoro ba waxtu way jeex teñ gi mooy ñaawlo gi mu koy booleel du takk ay takkaay du toiletu du xeeñoo ay gët du taal ay cuuraay ci néegam yu demee noonu ba diir bay mat loolu nag saa bu yëgee ne borom këram faatu na rek tàmbali na bu ko yëgutoon sax am na bu fekkoon ne dafa dafa dafa dafa faatu ñu toog ñeenti weer ak fukki fan mu door a ñëw daje jeex na teen jege jeex na bu fekkoon ne dafa toog weer ñëw kon la des ca teen jega mooy euh, ñetti weer ak fukki fan ndax ba mu faatoo rek moom ca la tënj gi tàmbale woon ak dëgg bu fekkee mel na nañu war a mel jamono yi baax na buñ ko melut it loolu bàkkaar la ndax xëtt nañ digal waaye duñ wax mukk ne nañ nekk ba néew bi ñëw wala nañ nekk ba bis bu ñu door a tàmbali tënj gi déedéet nit ki bi mu faatoo daal bis bi ko njëkk a fekk ci baat sax maanaam fajar bi njëkk a fekk ci baat sax fajar joo fajar bis boobu ci la ñuy tàmbalee wàññi euh, tënj gi masalan mi bu faatu woon alxames ci day jàpp ne ajjuma jëcee sës la ñu tàmbale wàññi di wàññi ba limbu mat euh, wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku doon jëfandikoo wérdu maaxuus ci isnun am nga xam ne jëlewu ko ci kenn ak it ndax daa am at yoo xam ne nee na nit da cee àgg door koo sañ jëfandikoo wala déet waaw wérde de ci tasawuf ci boppam rek daa laaj ab sanat maanaam nit ki bu ko dee jël di ko barkee noonu rek loolu du koy jariñ njariñ lañ ci seenu dëgg-dëgg bu ko ci amee moom mun na jaamu yàlla nag mu nekk aw yow waaye njariñ liñ ci diggee dëgg moom wala koo am nit ki jëlee ko fi ñu ko war a jëlee mu jokkaloo kon li gën mooy mu wut ab sanat bu jokkaloo diw xam bu àgg ci borom wirdo te loolu jafewut ñaareel ba it wax ne ak sàngam la nit toll nit ko xas nekk mu kàllaf jaamu yàlla la bu xasee nekk mu kàllaf rek mën na ko jëfandikoo léeg-léeg nit nag wax ne nit eh, négal ba nangam xëy na ngir yeneen man mën naa am yàlla xamal ko ci moom waxtu woo xam ne bu ko ci jëlee boo du ko mën a sàmm mu négloo ko waxtu woo xam ne bu ci àggee bu yàlla dogalee mu àgg ci dana mën a sàmm ndax ci dëgg-dëgg sax kenn xamul waxtu sangam kañ la fi kan di àgg kan moo ci àgg waaye léeg-léeg nit nag yàlla wan nit ki moom mu xam ne fi mu nii bu ko jëfandikoo ci waxtu wii de du ko jox àqam kon du ko jariñ mu négloo ko weneen waxtu xëy na bu dee lu mel noonu waaye duñ wax ne faaw nit ki am nangi mett da ko jëfandikoo moom wallahu taala alam mbokk mi laaj ne na koo xam ne dafa demoon tool yóbbu aw fasam yeew ko julli jot na muy julli nee na gis ne fas wi mi ngi rëcc na ragan ndax dana sañ dagg julli gi ngir téye fas wi waaw julli sañis na ko dagg ngir xettali bakkan ak alal ju am solo bu ko layee na fas wi bu rëccee xamut fu ñu akke ji Eh, mën na ko ca doxe ñàkk ko loolu alal la dañ koy sant mu dagg julli gi ngir xet li yeewaat ko bu dëgër dooru julli bu doo gisoon noonu bakkan buy nar loru it loolu lañ koy sant wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa dégg ñu ne yonent bi alayhi daa wax ne néeg boo xam ne ay photo dafa am ku fa julli yàlla du nangu julli ga muy laaj ndax xadis wér na ak loolu nañ ko déggee ci mazhab bi xadis boobu moom gisuguma ko gis naa dal xadis bi wax ne néeg bu am ay tamasil ak tasawir malaaka yi duñ fa dugg te loolu it ci mazhab malik moom liñ ci jublu mooy nataal yi nga xam ne day am takk ndeer li ñuy tudd ay mujassamaat nga xam ne euh, dañ ko yett wala ñu tabax ko moom jëmm te am am ruu moo xam nit la wala mala loolu moo xaram te waru koo def amma bu dee luñ dessin ci ab miir wala xeeti photo yi moom ñoom dañu wax dañ koo sib bu dee ci julli nag moom jëmmi xibla ci boppam lépp lu fay nekk luy soxal nit dañ koy sib ba ci rafetal yi ñuy rafetal jàkk yi sax dañ koo sib ci masab Malik ndax day soxal nit ba buy julli eh, xibla bi di gis nataal yooyu mën na koo jaxase mën naa taxit ak teewalam du moo tax ñoom ñu di ko sib wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yoo xam ne dañoo amoon ay jafe-jafe ba jigéen di ñaan baat góor gi ne du ko may baat nee na mu yóbbu ko ci yoon ñu dem yoon atte ko ba tas sëy ba muy laaj atte tas boobu ndax borom kër moom nee na bàyyiwul waa ab sëy de borom kër moo ko mën a tas walla yoon bu fekkee ne soxna si bi mu demee ci yoon wax leen ay njàmbatam biñ ko seetee lor da caa nekk nga xam ne moom daa nara loru ci bu wéyee ci sëy bi su boobaa yoon sañ naa tas sëy bi bu fekkee ne waa ji nangu ko tas dañ koy tas ci aw ndax bu doon lislaam yi noonu lay atte yi ñuy tere yi ñuy tëral ci luwaayu adduna yi bu ci wuuteeg lislaam mooy atte bu baaxut waaye bu fekkee lañ atte dëpp wuute wuuteeg lislaam atte ba dara nekku ci sa kon daal lañ atte xam nañ ne soxna si bu lislaam moo doon atte it day tas sëy bi ndax ñu ngi loru ci ci ci ci bu wéyee ci sëy bi euh, su boobaa nag tas bi ko yoon tas day wéy waaje nekk fanaan wëcc ma sama soxna du tey sëy ba tas ndax yoon suñ naa tas ab say ci kaw ay ay sart wallahu taala alam mbokk mi laaj koo xam ne day digal soxnaam julli nee na du nangoo julli ndax daa war a tàggoo moom walla waaw ki bañ a julli day ñaari mbir moo koy waral benn mu weddi julli ci bokkum jàpp ne julli amut ak koo xam ne tayel rek moo ko moo ko jàpp xam na ne julli war na ko waaye dafa tayal wala dafa euh, kàccoore rek diine moo def ñaar ñooñu bokkuñu at sëriñ na ko ki nga xam ne dafa bàyyi julli te ngir weddi julli kooku yéefar dañ ko war a rey te buñ koy rey rey kéefar lay doon amaa ki nga xam ne da ko bàyyi ngir tayal moom euh, bu nguuru islam nekkoon ñu julli loo ko mu lànk dañ koy rey moom itam waaye nag buñ koy rey ab jullit lañu rey moom nag newuñ ci atte yooyu euh, li gën ci moom mooy mu fexe ba soxna si julli dimbandikoo ci di ko waar ak ku xam ne xëy na danay déglu ay waxam mu sàkku ci moom waaral ko ko bi ñaan yàlla yit yàlla gindiko te taxaw ci temm su booba yàlla mën na koo dimbali wan ko it lor yi nekk ci ñàkk julli ak njariñ yi nekk ci julli su yàlla mën na ko gindi wallahu taala alam mbokk mi laaj ne ñoom dañuy jóge Tuubaa ci fajar gi dem Dakar dugg ay biif waaye bu ñu fiy jógee fajar du jot ci yoon wi la fajar du jot te ñaare bala ñoo àgg fañ jëm euh, jant bi fenk te nee na biis yi duñ nangoo taxaw ci biir autoroute péage bi ngir mañ may nit ñu ndax dañuy julli ci ci biir oto bi wala ñu nekk bàgg dañoo war a taxaw julli ndax ñu ngi taxaw ngir julli ci yeneen te autoroute bi am na ay barab yu ñu mën a jullee moom bu fekkee dafay jóge waxtu woo xam ne euh, saa bu fajar du jot du ñàkk mu am fu mu toll foo xam ne mën nañ fa taxaw julli ci barab yi bari ci yoon yi am na ci te danañ fay taxaw ngir yeneen te julli nag ndigalu yàlla loo xam ne moo sant jàmm bu ñuy wax naan julli ci avion wala julli ci oto wala ci saxaar day doon foo xam ne taxaw fii nag mën nañoo taxaw mu def yitte nit ñi fay dugg xam ne seen diine war leen jaral ñëpp maase woon ci ne ko ñoom bu julli jotee dangay taxaw ñu julli faw dana taxaw ba ñuy ba ñuy départ ñu xamal ko ne quoi ah, ñu ngi dugg ci oto bi de waxtu bi dana sàngam la ñuy julli fajar bu jotee da ngay ma ñuy julli boobaa dana ko def ndax dana àgg fu ñu mën a may ñu julli wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na jigéen joo bëgg a takk soxna def ci ay ñaan ba mu jublu la ndax loolu dagan na la déet bu fekkee ne noob la jublu de dëgganut ak nuñ ko mën a def loolu xeetu njaboot la bu fekkee ñaan yàlla nag ñaan yàlla dëkk dékk say loxo ñaan suñu borom euh, ni mu santaane kuy dugg ci mbir nga def listixaara ñaan yàlla lii ngay dugg ba ne ci yow yàlla na ko yàlla yombalal bu gënul ci yow yàlla ci la loolu dañ koo sant julli bu ne wallahu taala alam mbokk mi laaj nee nag koo xam ne am njàppam day faral di toj lu bare bari lu atem bu fekkee dafa bari dal ba àgg ci li ñuy wax salaf nga xam ne waxtu wu ne sobe day génn ci moom kooku dañ koy sant bu julli jotee jàpp bu jàppee ba noppi sobe sa génnaat it na wéy mën na ko julliwaale kooku moom jiitee la lu def jiite ku loolu dalu waaye duñ ko sant waaw waxtu muy jàpp su julli jotee na jàpp bu jàppee ba noppi sobe génn sobe sa mën naa doon ngelawal mën naa doon euh, ndox toq sobe mën toq wala am ngaan waaye wala yu mel noonu su boobaa mën na koo julliwaale waaye day jàpp nag te julli waaye nag du jiite ku loolu dalut wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na Euh, koo xam ne fi mu nekk fajar euh, gee ji day guddi ndax dana sañ a jiital gee balaa waxtoo jot ngir mën a teel a tëdd ndax mën a teel a jóg war a liggéey waaw waxtu nag dee ko jiital kenn du julli te waxtu jotut fi ko mayee rek ci ay barab la bokk na ci kuy tukki wala yu mel noonu tukki ak yu mel noonu rek ci lañ mayee nit ki mën a jiital waxtu te du waxtu yëpp sax lu mel ni timis ak gee moom nit ki mën naa julli timis julli waala gee bu fekkee ne bu sërmale tamit day départ jëm ci tukki foo xam ne fu mu jëm bala fàgg fajar jot mën naa julli tamit sa géejoor wala timis jot mu xiin xiin wu tar ñu ragal ne balaa géej dana taw te boobaa julli si dana jafe ci jàkka ji mën nañoo julli timis ak géej ci jàkka ji di dem ñibbi ci kër yi waaye bu dee ñu ci kër sax duñ ko sañ kon waxtu ne géej day guddi wax ne géej day guddi donc doyut illa ci jiital ko kon moom na julli timis waxtoom fas yéene bu géej jotee mu julli bu fekkee mën na fee dallu ci diggante bi jógaati baax na donte nag taamu ñu sax nag di tëdd njëkk ñu julli gee waaye mën naa waaj ba nga xam ne fu mu sëlmale rek bu noppee dem tëri wallahu taala alam mbokk mi laa nee na ku doon jaay nit ceeb nee na di ko jaayee kilo ñeent fukk ndax xamutoon fu ceeb toll ñu waxaale bu juboo nee na waaye ginnaaw bi nag mu xam ne ceeb tollul foofu ndax dana sañ a xaj njaay mi wala lim ko waxoon rek ci la ko sañ jaayee bu fekkee wax nañ ba déggoo moom jaay ma dog na ndax suñu waxee ba jiboo ci jaay jaay ma nangami kilo kilo nangam mu ne ko jaay naa la ko loolu wax di jeex na bu ñu waxee ba waxatuñu rek mooy ne njaay moo dog na kon moom su bëggee kii léegi day day dañuy wax ne xàcc ak jëndaat la su ko bëggee xàcc day laaj ki jëndoon ba mu d'accord ca bu bëggee xàcc nangu koo xàcc looy su ko nanguwut njaay mooy ne day day jël xaalisam cee jël ceebam donte nag am na xadis bi wax ne ku xàccal ku jaay dara ba noppi rëcc ko nga xàccal ko maanaa nga nongul ko mu xàcc loolu aw yiwa nga ci loo xam ne yàlla ko def yàlla dana ko fay aw yóbbu ëllëgee waaye nag lu mel noonu ku ko defit boo ko mënee dimbale bu delloo ginnaaw yit nga dimbale ko delloo ko ceebam mu jox la sa xaalis dara nekk ci la aw yiw aw yiw la bopp waaye su ko neexee nag njaay mu xasee dog moom sañ na ne ko jaay nga ma jënd la léegi man ceeb nga may jox ma ameel la xaalis ndax njaay mi dog na doonte joxe guñ dara wax nañ bu jubóore boo wax ci dagg loolu njaay ma moom wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa jàng yenn masala yi nee gis koo xam ne day def lu dul noona te bu ko ko waxee xëy na moom du ko gisee nam lañ ci jublu ndax kooka noppi ca dañ ko caa wax dara dana ci am bàkkaar wala nu mu war a def waaw diine de laayante biir la munkar it dañoo santaane ñu soppi ko man raa minkum munkaran fal yugayyirhu noonu ko xadis ba waxee diine laayante biir la lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li aimati almuslimina wa ammatihim kon ñëpp lañ war a laa biire waaye nag laa biire day nekk bil xikmati wal mawazati alxasana nit ki suy laa biire nit na fexe ba bu xam ne laa biire ga du jur ab safaan am na koo xam ne mën ngaa wax ak moom wax ji yiw ba yee ko ca la nga ko bëgg a yee am koo xam ne nag la gën mooy nga jaar ko feneen xam nga ñu ko xam ñoo xam ne xëy na ay maasam lañ boo leen leeralee ñoom bu ñu waxee moom dañ leen dégg bu fekkee ne yoo xam nga ne boo boo waxee du ko dégg ci bunt yu mel noonu daal la ñuy laabiire nit te moytu nag di ko laabiire ci penc ak ci biir mbooloo wala yu demee noonu wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na gan xeetu dajale alal la alquran di tere ak gaañu baax ñi waaw dajale alal joo xam ne danga koy dajale ngir dajale alhaykumu takaasur ji alxuraan di wax takaasur mooy kuy dajale ngir bari mu bari rek waaye kii dajale alal ngir faj ci aajo ak ngir jaamu ci yàlla moom lu ñu gërëm la waaye alal joo xam ne nit ki da koy dajale mu yokk rek te jëriñu ci jëriñu ci génnewul àqi alal yi ko ca war dimbale wu ca kenn jëriñu sax moom ndax ñaari dajalekat di mag ñooñu daa ci ëpp du ci jëriñu dafay nekk bañ faatu rek ñeen jëriñoo ko loolu lañ naan ñi ndax bu ko fàggoo it boo ëllëgee bu ci ñëwee dafay ab safaani dana ci am wàll ndax moo ko fa dajale wallahu taala alam